xale yi dañuy bëgg dem Europe teral seen ay waajur nee nañ dañu bëgg tekki mais ñu jàpp ni dëgg la ku ne bëgg na tekki mais kuy dem danga jéem jaar ci yoon bu xaw a tane yoon bu wóor ndax mool moo xam géej de mool moo xam géej yàlla nag moo mooy leeral ak yëpp mais yoon bi nga xam ni risque lay demee ya yaakaar naa ni risque moom kenn waru ko demee donc maa ngi ñaan xale yi su fekkee dem mënul ñàkk kuy dem na dem ci lu leer am këyit jaar ci yoon bu leer nga dem ñaan yàlla vraiment ñu ñaanal la li ngay dem nga wuti ko li ngay wuti nga am ko si jàmm mais bu dul loolu bu ñu forcé forcé ni kutu kut damay dem barsax barsa wala barsax ah wax dëgg yàlla loolu wax dëgg yàlla dañuy ñaan xale yi rek ñu gën a xel ci loolu di ñaan aussi sunu yaay yi nga xam ni ñoom ñooy jut des fois yaay tegg tontine jox doom ak yooyu des fois mu jaay oram demul c'est normal parce que dëkk bi metti na mais tamit ñu xam ni dom doom bu war a tekki dafa metti te an sama doom des na si géej gi metti na te Pikine fii Pikine bi may waxee nii li may wax xam nañ ko bari na ay xale yi nga xam ne day ndeysaan ñoom ñëpp ci géej lañ des yàlla leen yàlla yërëm yàlla na wàccuwaay seen àjjana di seen wàcc waay donc mënuma woon daaneel te waxuma message ah ñoo ngi jëm ci ay élection ay jongante te ku ne élection rek xel yi bare dañu dem ci ay xiiro ak ŋaayoo mais li ñuy ñaan rek mooy jàmm lu ko waay jëndee jar na ko bu nu kenn yóbbu ci li nga xam ni ay xiiro la ay ŋaayoo ay lakk université ay yeneen ak yeneen yi nga xam ni foofu dañ njëriñ place yu jër jàng jàngu xam-xam la place bi nga xam ne dañ fi war a jëlee njëriñ ñu lakk ko te fekk ay milliards lañ ci dépensé aussi loolu bu buñu sunu mer yóbbu ci loolu lakk ay oto yi nga xam ni ñoo ñuy yóbbu buñu sunu mer yóbbu ci loolu donc nañu ànd ak suñu xel xam ni dëkk bi lépp lu fi nekk ñu ñoo ko fi def lépp lu ñu yàq suñu bopp lu ñu yàqal donc ci gàttal maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp lépp lu ci jub daal ñu xam ni suñu borom bi la lu dëng rek xam ni jaam bu motal bi la maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne nag jumaa jaa ngi nii